الذين إذا أصابتهم gis ngeen programme bi nañ ko dogee ak euh, tii sunu dab bu laal euh, njabootu journaliste yi di làquk euh, njiital groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass mi faatu sànq ci suba boori huit heures principal bu Ndakaaru biig daal la am malaise cardiaque ñu évacué woon ko fa far mu wàccub liggéey di xibaar boo xam ni euh, ñamuy liggéeyal euh, confirmé nañ ñu ko ku ci mel ni Abdourahmane kamara mi nga xam ni moo jiite yéenekaay bii di Walfadjri te yàgg ak moom dinañ ko dégg sax ci kanam tuuti man di ci ci studio bi nag euh, ak El Hadj Assane njiital RFM walfu woon cay jamono El Hadj Assane wiiw tiis laal laal ñu bëri ñoo xam ni ñi ngi ci réew mi di yëngu ci lii nuy def waaye Sénégal gi yëpp di enuk àdduna Sidi lamit Niass njiital groupe Walfadjri